bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaaraaka ñaanal jaaratullaahi الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن الأمين وعلى آله والصحابة غير الميامين ولا خير خديمه ذي حبل المتين ولا من اختفى آثارهم إلا يوم الدين موك جلدي السلام عليكم wa الله تعالى wa جناو بني bi ñu musuloo ci seytaane بسبحانه وتعالى wa julli ci yenen tam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam sant cheikhul khadim kana lahu bi karami baaxil khadim ñu ngi nuyu ñepp di ziar ñepp di balu ñepp xaq di len ko baal di ñaan yàlla ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñun ñepp ci darajay cheikhul khadim ñu fassiyene leral suñu suñu kéemtalaay kàttan rek euh, euh saraxe ak jokk ak mbokk ak joxe ci yoonu yàlla li nga xamante ni si ngëneel yi nga xam ne moom ci ak tiyaabe yi nga xam ne mi ngi ci ñu fas yéentee leeral suñu kéemtalaay kàttan ginnaaw bi ñu génnee ci jeexalee ci programme bi nga xam ne moo doon sëy ginnaaw bi nga xamante ni génn nañ ci jeexaloon nañ ko kon li nga xam ni ngéneel yi nga xam ni dafa nekk ci sarax dafa am loo xam ni dafa am importance ndax sarax dafa di tiyaaba yi ci nekk ak ngëneel yi ci nekk kenn mënu koo natt ndax bari goo xamante ni si bari na ba tax na xam naa dañ ciy tënk rek li nga xam ni mooy eh, suñu kéemtalaay kàttan ak li nga xam ni waxtu wi dinañu ko may kon ama tasadduq ma al infaq fa jamia al xayraati bi وكل ما يكون نفع المسلمين وسلة الرحم أيضا كل حين kon mbooleem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ni saraxe ci yoonu yàlla ak saraxe ngir yàlla rek te yàlla tax ak joxe sa alal ngir yàlla rek te yàlla tax dépensé ko ci mbooleem yi ci yiw yi ci nekk bari na lool kenn mënu koo takk loolu mbooleem boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci li ci mel ni nga jariñ jullit bi loo xamante ni fii jullit bi dina ci mën a jariñu wala nga jóg dem dox mbokk rek te yàlla tax wala nga dem defari mbokk boo xamante ni sii dafa naroon a yàqu nga jóg dem dox ko fexe ba mbokk ma ba rataxaatal diggante ma loolu dafay di loo xamante ni fii lu am solo la moo dem defar loo xamante ni si lii gis na ne su ma ko defaree kat dina juru jullit yi dinañ ci mën a jariñu lii de bu tabaxee xëy na jullit yi dinañ ci mën a jariñu garab gii su ma ko jiwee fii sama mbokk taalibe julli jullit yi ci mën a jariñu ci meññeenteef bi kër gi sax wa illaa ku romb sax boo toogee mën cee jariñu walla teen bii su ma ko gasee defar ko ku ci romb soxla ci ndox mi tànk ci xéewli ci yooyu yëpp luy jariñ ji nit ki la kon lu yaatoo yaatu la kon lépp loo xam ne soo ko defee di nga nekk dina nekk luy jariñ jullit bi wala nga jóg dem daan di dox ak mbokk gu yàqu nga fexe ba jokk ko ma mbokk gi me suudewaat mel na meloon kon loolu lu am solo la wa qiila in xadar yowmal baari wa duriba siraat fawqa naari wa kaabadal wara al jawa wal xumma naadaal munaajin ayna ahlul xidma fa للمسلمين فأجابوا أجمعين فيؤمروا للجنان مسرعين kon su ko defee ñoo ñu xam ne dañ doon def loolu ngir yàlla rek te yàlla tax bu yowmal xiyaam jotee ba nga xamante ni si euh, jant bi tàng na lool mu tàng torop nit ñi naq ñaq sonn ku nekk jaax jaaxle nit ñi jaaxle di jànkonte ak ay aw tiis ak naqar ak ak njàqare goo xamante ni sii bu diis la su boobaa wootekat bi day woote daan ana ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal jullit yi ñaana ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyal jullit yi daal leen di woo su ko defee ñoom ñëpp ñu daal di wuyu ñu digal ñu daal leen di digal ne leen aywa waaxu leen ngeen gaaw gaawantu ngeen dem dugg aljana lu ko waraloon ndax boobu ñu doon ndax boobu ñoom ñoo daan euh, ñoo daan dimbali julli gi bés booba dana metti lool ndax bés booba nga xamante ni si jël nañ siraat jël nañ siraat teg ko ci kaw teg ko ci kaw sawara nga xam ni booy xef rek di pëtëx ci biir sawara ku nekk jaaxle jaamu yàlla yépp daal di jaaxale ak seeni seeni seen ndax li ñu nar a jànkonteel nga xam ne fii ñu war a traversé yàlla rek moo leen ci morom mën a muccal ku ci xef rek di nga surux ci biir sawara si wayaasi bi laa waaye su boobaa suñu boroom ñi nga xam ni dañ daan saraxe ci yoonu yàlla ak daan jokku mbokk ak daan liggéeyal li nga xam ne mooy jariñ jullit bi su boobaa dañ leen di woo ku ñu wuyoo ñu gaawantu ne leen gaawantu leen ngeen dugg aljana te du ci lu ngeen ak ci lu dul benn la kon loolu lañ leen di def بأن يقولوا لهم يمدوا الجنة بغير محنة وغير فتنة kon nga gis ni dañ leen wax naan du ngeen yem rek ci dugg àjjana waaye dañ leen di wax ne leen na ngeen fa sax dàq ci lu dul benn coono ak fitna doo xalaat dara doo am benn coono te doo fa liggéey dara ay xéewal rek moo la fay fekk yoo xamante ni si yu kawe sa njortu lay doon ci sa biir aljana boobu waaye ni kon ngeen gis ni sarax saraxe wala jokk mbokk ak defar loo xam ne dina jariñ jullit bi lu am solo la faxdihim si turran li wajhillaahi faqat bila mannin wala naahi kon ngeen xam ni sëriñ bi nee na na ngeen jàppoon ngeen yéen ñépp ngeen liggéeyal seen mbokk jullit yi ngir lan ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala ci lu dul ñaxtu ak yokkat ak benn ak ak ak ak ci lu dul ñaxtu ak yokkat kon loolu am solo la képp koo xam ni am nga loo tanee sa mbokkum jullit rek war nga ko ci mën a dimbali lu dul nga ko ci nga ko ci koñe wa kulli kulli maa yu sawi mu xafifan wa kullu maa yasuruhum kun mubtadiyan mu kun mubdiyan waaye mu ne li gën a am solo mooy sa mbokkum jullit toujours de ko nëbbal yi nga xamante ne si yu ñaaw lay doon loo xam ne su koy yëgee dana naqari xolam xolam du neex nga yàqal ko àddunaam wala nga yàqal ko journéem nga di ko ko nëbb waaye lépp loo xam ne dina ko béglu dina ko bégloo nga mën nga ko koy wax feeñalal ko ko Eh, su ko defee muy am mbégte la dara gënul lool sa mbokkum jullit am njàqare nga fexe ba bégloo ko fexe ba indil ko loo xamante ni wax ko loo xam ni xolam dafay neex ba mu mujj di ree loolu lu am solo la waaye saa yoo xëyee rek yaa ngi dox ci luy yàq ak lu naqari nit ki saa yoo xëyee yaa ngi gaaral nit ki ak di ko wax loo xamante ni si lu dagg xolam lay nekk ak loo xam ni lu ko naqari lay nekk yooyu lu mat a maytu la yu sew sew la waaye lu rëy la ci suñu boroom kon tooñ baaxul kon fitna kenn du ko yee koo mën a wax ju neex rek sarax la comme niñ koy waxee wax nit ki wax joo xam ni dana dalal xelam ba mu mujj kontaan moo gën nga koy wax ay ñaawteef yoo xamante ne si danga koy yàqal àddunaam wa kullu man wa waafaaka al ijti lijtihaa الاستداء فثب عليه مثل العداء إن كنت ذا غنا ولا, ولا تحتكر مالا إلى غد لخوف, لخوف الضرر لأنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك ذاك المال كن فلا فيني نيوي خيسلا نيو دينك si la ñëw dénk la boppam bu fekkee ni fekk naa ko fa li gën mooy sëñ nee na li gën mooy nanga ko ko jox ba mel ni kuy taw ab joxe ab jox danga ko jox ba mu doyal ba mel ni ab taw maanaam bu fekkee danga nit ki ñëw na di wut si jaww fekk nga yor ko mën nga ko dimbali ko ba moom ba nga xamante ni si njàqareem dana jeex loolu la ci jublu waaye nit ki ñëw di sàkku ci yoo ndimbal ah, mën nga ko koo fajal di ko jox lu mat ay fukki dërëm wala téeméer loo xamante ni si ay junni moo koy xaj te fekk na yow yor nga sax lu ko waaye néeg ngaa génn rek benn som dimbalee ko sa mbokkum jullit mu faj ci aajoom ndax xol boo xamante ni si loolu xol bu banku la yàlla ñu ci yàlla musal kon ku ñëw ci yow wax la aajoom nga mën koo dimbali na nga ko dimbali te yàlla tax nee na na mel ni ab taw ci ab joxe na ko jox ba mu doyal ndax fekk na ko fa te it mu ni bu fekkee ni yàlla dalaa jox am koom bul ko dencal ngir ëllëg naan naa ko denc ngir ngir ëllëg ngir lan ngir ragal aw lor naa denc lii ba suba su ma dépensé lépp dafay jeex te kon bu subaa duma yor nee na loolu bul ko wax ndax loolu ngir ragal ñàkk ak ragal lor loolu ku gëm yàlla te wóolu ko doo ko def moo tax mu ne bu fekkee yàlla laa jox am koom bul dakase bul bul bul bul ko dencal ëllëg loolu dafa nag moom dafa dem ba ci dafa laalaale sax commerçant yi ndax nit dina ak ñoom den saay marchandise dina am boo xamante ni dina toll foo xam ne dafay dañ naan dafay manqué nga gis kenn ku ci nekk waroon a génne jaay waaye dañ koy denc ngir xaar la ngir ñu yokk prix ba ñu mën kaa génne daal ci profito te loolu lu xaraam la loo xam ne baaxul ci yow dafay amaana sax mën naa yàqaale sax euh, sa njaay moom ngay jaay te doo ko yëg ndax dugal nga ci loo xam ne bokk ci kon daal wërsëg wi la yàlla jox ku ñëw ci yow ngiru tablu si ci nanga ko jox ngir jëme yàlla ji subhaanahu wa taala te bañ koy dencal ëllëg ndax suba suba yàlla la mën naa am nga fekk ko mën naa am doo ko fekke te li gën a bon nag mooy nga denc sa xaalis bi ba dee ñëw fa nga nekk mënatoo faa jóg waaye yaa ngi rëccu naan ak a neexoon la ma denc ma génn ko joxe ko ba duma ci dese benn dërëm te fekk na bu boobaa rëccu wees na kon joxe lu am solo la te yàlla tax mu ne fa xaysuma ak sarte fiihi talafa li waj yi ataaka jalla xalafa foofu yi fu waay joxe rek mel ni ku yàq joxe joxe joxe rek ngir jëmm yàlla ji rek tax joxe ngir jëmm yàlla yi rek suñu borom subhanahu wa dina la ko wutal dina la ko jox euh, dina la ci jox dina la ko remplacer leneen loo xamante ni sii sax moom moo moo moo koy moom moo koy gën wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kon loolu lu am solo la lépp loo dépensé rek jarul xeeb ngir yàlla rek te yàlla tax suñu borom subhanahu wa taala dina la ko dina la ko kuutal ba nga xamante ni si danga koy da nga mujj sax xeeb la nga daan joxe kon fadailul infaq wa tasadduq kathiratun jiddan alal mutafiq kon daal ngëneelu joxe ak saraxe bari na lool lool lool sax ci ba dëppook boroom xam-xam yi wa fil xadiisi anna zal jalili yudxilu yowmal ghammi wal ahwaali bi luqmatil xubzi wa qabdati tamri wa kulli ma yanfau miskinan xadar kon nekk na ci xadis bi seen sell ba sallala euh, muy bu xadis yenent bi sallallahu sallam mu ne joxe te yàlla rekk tax joxe rekk te yàlla rekk tax dina dugal boroom sarax boobu nga xamante ni si yowmal xiyaam nga xam ne bésub njàqare la ak bésub tiitaange suñu boroom subhanahu wa taala dina ci dugal nit ki ci lan ci ab benn ngëbu tib bu mburu ben nga bu mburu wala xaritu tàndarma rek suñu borom subhanahu wa taala dina la ci duggal aljana waye tamit ak lépp lo xamanteni ci dang ko def ngir jariñ miskin bi waaye salasatan jannatuhu fayudkhiluna fiha bi iznin min al ilaahi al aalamina hum saaxibul baytu allazi amara bihi wa zawjatun muslihatun faltante bi wa xaadimun yaxdimuhu wa kullun zaata faddala faddalal karim raail maquza mu ne boroom kër bi nga xamante ni fii ñett ñi suñu boroom dana leen dugal aljana ci lan ci ci coobareem mooy lan mooy ñetti kenn ki mooy boroom kër gi nga xam ne moo yore ndigal li di digle ak soxnaam si nga xam ni moom la euh, borom kër bi digal ne ko defal ma sarax si soxna borom soxna saam su sell soosu dana ca bokk muy ñaar ak lan jànq ba ca kër ga nga xam ni mooy mindaan mi ni ñu koy tuddee ñu di ko toggloo sarax ba mu togg ko ngir nit ñi lekk ci ñoom ñett ñoom ñëpp suñu boroom dina leen dugal ca aljanaam ju sell jooju kon tafaddalul karim raayil maquda kon si ca ngëneelu suñu borom bu subhaanahu wa taala ma nga xam ne mooy bareem boroomu tedd nga ga kon nga xam ne ñépp dinañ ci laawaale kon am na solo wa xaysuma tasaddaqa al insaan xafidahu min al balaa arrahman wa kullu maytatin bi suuin taxsulu ka misli israil wa zulmin yumal wa kal qunuuti wa qataci rahma wa bagtati l mawti wa suuil maxtami kon foo xamante ni sii rek nit ki saraxe na fi rek te yàlla tax jege na na fi sarax te yàlla tax suñu boroom dina ko muccal sàmm ko ci mbooleem balaa yi nga xam ne moom la suñu boroom di wàcce ci kaw suuf waaye suñu boroom dina ko muccal ci bépp deewin gu goo xamante ni waroon naa dal ci kawam yi mis dina ko muccal ci li lépp loo xam ni li ñuy wax nuuru ba nuur ci ay bàkkaar suñu boroom dina ko ci muccal ak ay lëndëm la lëndëm ki tooñ yoo xam ni daan na ko def doon na koo def di mel ni kii nuur ci ay bàkkaar naagu ci yërmande yàlla ba ni ya ni yàlla dootu la yërëm loolu yépp suñu boroom dina la ci muccal ba ngay wëlbatiku saa yu nekk di di jéggalu ndax foo naagoo ci yàlla ni yàlla yërmande yàlla ba yàlla dootuma yërëm ba bañ a jéggalu yàlla loolu loraange lay doon waaye sarax dina la muccal ci loolu ba nga bañ a naagu ci yërmande yàlla foo toll di tuub di jégalu dina lay muccal ci koo xamante ni si yàlla daf koy natt mu nekk koo xam ne day dog kotu mbokk waaye day rattaxal mbokk fu mu toll kon it suñu borom dina ko muccal ci bépp deewin goo xam ne deewin gu ñaaw la ak mujj goo xam ne mujj gu ñaaw la yàlla dina ko ci muccal kon mujj gu ñaaw yaan ci yàlla musal musal ci bépp jullit foo toll njëlbeen am na solo waaye li ëpp solo mooy mujj gu rafet yàlla nañu yàlla may mujj gu rafet wa sadaqatun waxidatun tad fa tadfau sabina maytatin bi suuin fau kon benn sarax rek benn sarax rek dina jeñ juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw yoo xamante ni si waroon naa dal jullit bi juróom ñaar fukki deewinu ñaaw yoo xam ne waroon naa dal jullit bi benn sarax rek dina ko ko fegal ba nga xam ni dana mucc ci moom kon sarax am na solo nit am na solo lool waaye wa tut fi ul xadaba xataaya it fa ma it na ma it naari zil ataaya ataaya waaye dina la fay fayal tamit merum borom bi subhanahu wa taala ni sawara di fayee ndox noonu la boroom noonu la mer noonu la ñi lay sarax bi di fegale merum boroom bi ba nga xamante ni si dina la fayal bépp ñaaw téef dina la ko fayal ni nga xam ne merum sawara noonu lay fayee ndox mi yow noonu la lay sarax bi di muccalee kon am na solo kon faa'iluha yajlis fi zillin laha qabla qadaa'il xalqi azim fadlaha kon aji jëf ji ci boppam képp ku koy def di nga toog ëllëg ca kerug yàlla ga nga xam ni ker du am genn ker rek mooy am gudul kerug yàlla boobu subhaanahu wa kon këllëg kay def loolu sar borom sarax boobu ëllëg dina toog ca ker googu lu njëkk ñuy borom bi subhaanahu wa di at jaaro jaamam kon na ngeen màggal mbirum sarax ndax sarax am la solo kon sarax bi ñuy wax tamit mooy sarax bi nga xam ni doon koy alhamdulilahi rabbil alamin def ngir yàlla rek te yàlla tax te bañ koy def sarax boo xam ne danga koy def publiquement ñépp di ko gis ba kan koy jox sax daanaka dootu ko bëggati ñàkk pexe mooy tax mu di ko ko jël waaye sarax bi ñuy wax mooy sarax bi nga xam ni danga koy nëbb ba yow ak kan koy jox ak sa digganteeg yàlla kese mu yem ci yéen wa rajulun te saddaqa bi saddaqatin xatta la taalamu shimaaliha maa tunfiqu bi yaminihi sarax bi nga xam ni da boroom da koo saraxe waaye da koo nëbb ba loxo càmmoñam ba xamul sax ban ba la loxo ndeyjooram ba yor boobu sarax la ñuy wax ni ëllëg euh, dina euh, ëllëg suñu borom subhaanahu wa dina ko boole ca ker ga nga xamante ni si ker genn ker rek mooy am kon boobu sarax lañuy ñuy wax euh, moo moo am solo kon li am solo mooy Euh, dégg ak topp nañ ko yemale fii ngir euh, de jëkkante euh, waxtu wi nga xam ni def nañu ba beneen yoon ñu eggale ko ndax ngëneeli sarax yi bari na lool sax waaye dañ koy yamale fii rek ba beneen li am solo mooy nañ lépp loo xam ni dégg nañ ko si ci sarax rek ñu xam ni am na solo ñu fas yéene di ko jëfe te bàyyi xel ni lépp loo def ngir yàlla ëllëg yàlla dina la ko fay te bu la yàlla fayee nga ruus ndax di nga ni man rëccu naa la sax sax defuma woon joxewuma jëluma woon sama alal yépp def ko ci yoonu yàlla kon ñu ngi gërëm ñépp di sant alxadimiya tv di sant eh, ñi nga xam ne dañuy seetaan émission sax la jaaratullaahi waaye tamit di baral cant ak ngërëm sëñ Mbàkke Mbegere mi nga xam ni mooy suñu caméraman ñu ngi koy ñaanal yàlla li nga xam ni moom la bëgg ci liggéeyu Cheikhul Khadim bi yàlla ko suñu boroom defal loo xam ne dana kawe njortam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, moo xam li mu bëgg ngi balu ñëpp xaq wasalaamaaleykum ma jóg man sant lillahi sangub jigéen ñii ci dunyaa jaaratullahi bismil ilaahi ma jóg man sant lillaahi sangug jigéen ñi ci dunyaa jaaratullaahi ngir ñépp ñépp a ko gàddul cant wardi ko way booleeg siyaaraaka ñaanal jaaratullaahi